gars yi maa ngi doog a yeewu waxoon naa leen man Wally Seck ku ko laal rek damay jóg toj sa cottu ndey gis ngeen Kali Info moo génn moo koy fay xaalis moom lay liggéeyal xam naa moo ko sant mu jël vidéo pambaay bi mu doon mayee xaalis Wally Seck mu dem dugal ko ci paasam dem bindu fa lii ba pare désactiver commentaire yi yaa ngi dégg ñàkk fay fayda weesuwul nga nekk France di liggéey sa ku nekk ba Amérique di la def loo ay plainte yaa ngi dégg di la di la dugalloo ay nit pour nga di wax lu bon pour am ci xaalis yow ku teppi sa lëfal ndey nga Kali sa tuunu ndey moo gën ñëpp ko bàyyi Atlanta la dem ca xew ma fay 3000 euros ñaa xarañ loo teg ko ci taabal ji ak këccëb pour ñu sinaabal ko ñu ne ñoom du ñu jaay seen dignité pare nañ ci moom du ñu jaay seen ngor ndax xaalis te du ñu ko def mukk ba mu sant ama neex mu ñëw di di di xuloo ak ñaa xarañ loo nar a xeex ak moom. ñëpp a ko daw xew ma dafa wéet ñëpp ko daw Kali la sant lii Kali dafa désactivé commentaire dem leen ngeen leen ngeen saaga tuunu ndeyam Wally Seck boo ko laay may kat sa booy xoola da nga ma bloqué woon bloqué waat ma man aw ma jot ay liw faramaaren liw faramaaren démb la mu fi dugg yónnee ma sa ñaari ojo mu ne ay yow yaa ko na ma saagaak yu kenn xamut naa ko jox numéro moo gét ma ne ko man du ko jox numéro moo gét ma ne ko nag bu ko jinne duggee mu ngi senegal mu saaga ma dootul saaga liw faramaaren xaw ma ko moo dugg fii ne ma yónnee ma sa ñaari audio mu ne da ngay def live nga saaga ko patati patata mu ne ma Kaliphone yow man yow laa kii ma ne ko aadamoo ngi nii ay audio ma ngi ni maa ko yónnee seen yi nga nekkee nekkuma si ay liiw faramaaren xaw ma leneen boo yooyu aw ma seen jot toog wala leneen di wax boobaa sénégalais man la ñuy saaga nday sax boobaa ay liiw faramaaren ñëw na fii di ma laaj ay numéro eh, eh, kii ak saaga na la yow ak wax na lu ne aw ma jot bi quoi aw ma jot bi seen ay faramaaren aw ma jot bi quoi bloqué woon nga ma continué waatal nga bloqué ma aw ma seen temps yooyu nekkuma seen temps yooyu quoi aw jot bi li ngay wax wumatuma ay liw de li nga liñ la sant noonu pour nga def ko ci Wally Seck laa bëgg nga katt ko ndayam dindi loolooy wax ji ci boppam te balaa ngoone vidéo bi kali bëgg naa mu katt tuunu ndayam dañ foofu ay liw faramaane yooyu intéressé wu ma continuel saaga ba gannaaw suba booy sa saaga yi ah wàññiwu cent franc sa arme mooy saaga yow xam nga ko juddoo Dalifort yaroo Dalifort man saaga daf luy saaga saagal téeméeri at saagal téeméeri at booy liw bi audio naa ko wax naa ko li mu koy wax maa ngi xaar mu dugg sama 18. yow xam nga ne xam nga ne yéen yéen pour yéen ñëpp laay boole dëgg seen ndey moo gën moom xam na man maay kan doful yéen lay yónni ak avocat bi mu leen yónni parce que yéen seen mbir dama cee pare woon bu yàgg. amoon sax jot di wax ndax xam naa ne ay dul ngeen tribunal ngeen di nekk di fotowu da ngeen xamul bu ngeen ñëwee fii dañuy dëgg seen ndey fii almaa yi fii dañuy kat seen ndey ci nu mu gën a gaawee ci lu leer nag laa la wax nag li ma lay wax nii barki Serigne Babacar Si pare ci côté yëpp. ngeen di ñëpp ndayam nekk foofu ñu leen di fay ngay monté ay vidéo dugal ay góor jigéen vidéo Wally Seck boobu da danga koy kat sa ndey dindi ci nii wala ci naa da ngay dindi lëfal ndayam man maa la ko wax nag cottu ndayam nag waaw keneen lijjantiwuma ko mais Wally Seck moom bu dee ci leen lay dugal ngay martaat damay dëgg seen ndey yéen ñëpp